daayira yëpp lay sa ñu ngi leen nuyu bu baax Mbakke fii ne soow mépp soow la waaye ndax mooy seen mag soxna mbeenum sëriñ Fàllu ba lay sa ñu ngi lay nuyu bu baax di jël suñuy siyaar ak suñuy kàddu di ko teg say loxo nga dina ko tegal ci loxoy sëriñ bi ndax mat na ko di nuyu nag soxna ajaa moom soxna ma jooju ñing borom baaj bi boo duggee léegi gis firnde ji borom baaj bi noonu laa ko tudde man borom baaj bi borom liggéey bu sell bi di nuyu Serigne Fallou di nuyu ñépp couronne baas bi rek ñu ngi lay nuyu léegi nag dañuy jël kàddu gi jox ko sunu Serigne ni ma ko xoon te njëlbeen ga di suñu xarit waaye bu ma sañoon benn jàngkatu xasida dana jóg jàng aw bayit ah waaw waaw jógal taxaw jógal taxaw ne ñox teg suñ kenn ko wax moom da nga taxaw yàlla yëkkati la ñëwal ñii man dam na xayra allahi yuxni aw yadur fadaaka fi daarayni zookatin wadur من ظن خير الله يحني أو يضر فواك فدا عليني ذو كد ودر أدر ونحو من رحمن ليس من البيدان وسودان أدرون حمل الجبار ليس ليس من الأعداء والأحباب أدرون حمل الوهاب ليس من الأعداء الرحيم صمد رحمن المؤمن المهيمن المنان يكفي البلاء وجملة الوباء وسئل الأعداء كل داي ناجاني الله المكرم صمد تناديا بك فاني الكمال وجعل الأكرام أنفع الكرم ودلل بخير رد للفرم أسأل كونتي الخسيدة عارحة لعادة وفيدة يا خيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم والتقبل الكلام من على خير ذي الحروف بما يفوق ظنك من معروف للازم الحروف خلد الرباق يا من كفى وضع الحرور والنباء والهدى رحمن يا ريم يا حيو يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم باصرا مسلما على مدحض الحلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام wasalaamu ala almursalina walhamdulilahi rabbil alamin pour ñi di nuyu jigéen ñëpp nee na di nuyu bokki taalibe yëpp nee na yu góor ñi ñu jigéen ñi nee di nuyu ñëpp it nag nee li tax ñu dajawaat fii nee mooy ki nga xam ni moo liggéeyal boroomam ba yàlla faye ko bindeef yépp nee na kum neex nag am naqari ak ku mu naqari nee na nee na tiijaan ak murit ak xaadir ak ñépp a téem nee na loolu moom lu wér la nee na li ciy firnde ji sëriñ Mat Jaw nee na li ciy firnde ji sëriñ Mat Jaw daa toog fi moom. ñëw ñëw nee na xëy ñëw di ko siyaare si. ba nee na bi mu ñëwee ba sukk. ba sukk. bay bëgg a sukk. bay nee na mu fitta sëriñ Mat Jaw joxoñ ko feneen. nee na mu dem toog foofa. nee na ca ruq boobee la tàmbali di ruum ba ñëw fi moom. nee na ba mu nuyoo ba noppi. nee na bi mu ñëwee ma jóg fi bëggoon a toog. nee na mu ne ko fii nga bëggoon a toog. nee na ko Iblis moo bàyyi ko woon ci détail bii nga bëggoon a toog moo tax ma fi tasu la ni la demal toogi nee. nee na Serigne Mat Jaw ne ko a ah, Mbàkke Iblis lu wut sa kër gi. mu ni ko. nee na mu ni ko ba ma liggéey sama liggéey bu sell ba ma noppi. nee na ba mu nekk ca liggéeyam mun sell boobu. ca Gabon nee na la ko fa fekkoon. nee na. doon ko laaj ñett. nee na boobee nag ba mu koy laaj ñett faw Gabon nee na booba tëlu ko. nee na mu bàyyi ba. ba ma liggéey ba dellu si. nee na ñett si waat di ko laaj. nee na sëriñ ma dew ni ko. mu ne ko. jox ñooñu jox naa ko ñett ñooñu. nee na mu ne ko ñett ñooñu nag jox naa ko ko. ñu ko mu ñu mu doon. sëriñ ma daway laaj de ne ko moom mbàkk ñett ñooñu ñu mu. ko dama doon laaj jigéen ju nanguut sëy. nee na mu ne ko dama doon laaj jigéen ju nanguut a sëy. ak ndaw lu toll ci digg dooleem ca nanguut a liggéey. ak mag moo xamante ne dem nga ba jeexal ca nangoo jaamu yàlla. nee na mu ne ko ba jox nga ko. mu ne ko jox naa ko. ko mbàkk yow de saalal nga woon ngeen nee na mënu ko. nee na mënu ko loolu lépp day muy jigéen ju toll ci sëy ca sëyut ak ndaw lu toll ci digg doolam ca liggéeyut ak ma mu jaamu yàlla war te defu ko loolu lépp sa alal la waaye jox nga ko. yaa liggéeyal sa borom. nee na mënu ko yaa liggéeyal sa borom. ba mu foyee la bindeef yépp te boo jógee. te boo jógee. ba nga jógee di dem ca liggéey ba nga jógee di dem ca liggéey ba. ngërëmal yàlla rek taxoon. nee na yàlla rek moo taxoon. ak liggéeyal yonent bi lu ko kenn mësul ak liggéeyal Seyduna Muhammad lu ko kenn mësul liggéeyal ak xeet li bindeef yépp ñett ñooñu de nee ñett ñooñu de ñoom ñooña day ci ñooñi la ñu bokk ñi nga sa alal la bokk yow di yaa waxoon ba ngay dugg ci liggéey bi yow mii de ca jeewal ni ay yasau min allahi inda jeewali iblisa isnaadaytuhu iblisa isnaadaytuhu bi yaa wali mu ne a mat jow ma dikk mu ne ko ah mat jow ma dikk laa ilaha illallah ca biir ma jow buuf lu yàgg lool nee na sëriñ ma jow buuf lu yàgg lool na sëriñ bi di tëll génn nee na dikk toog mu toogoon kaala gi lay yëkkati ñaq yu sotti ko mu ne ko mat moos am ku lay ñaax baax na lool nee na ba dugg dabag jot te nangu naa ña ko joxoon nee na man koo koy mbàkke nee na lii rek la lii rek a a am waaye loo moom yoonum newu ci nee na loolu nee na loolu firndeel ni nee bindeef yëpp penkook soowook gànnaar ak suuf lépp sëriñ Bamba nee na ku tedd kay wax nii dunya wa uxra samadu moo yàlla maa innahu lixtaaruhu muhammadu nee na lépp loo xamante ni ni tànn na ca yàlla moo war ko boppam yonent bi teg na ci loxoom te dox na ko sëriñ Bamba nee na moo tax bisam bii ñor na ko lool nee na ñor na ko de nee na daa bëgg a xettali bindeef yëpp nee na ñëpp it mën na leen a xettali nee na ku tedd ki sunu borom moo ne ko woon sa bi tey jii day tey jii day. natt bi jeex na natt bi jeex na tàkk. fay rek a des fay rek a des. bay wol xiyaam. nee na ba yomal xiyaam. ne ko xam ne. nee na ko sunu borom may wax ak moom de may naa la may goo xam ne yow si Ahmadou Bamba. nee na musuma koo may kenn. nee na dootuma may kenn. ba may lëm dënd ba may lëm dënd. nee na ba muy lëm dënd bi peggoog soow ak kaw ak suuf dootu ko may kenn. nee na saa bu dana ful lépp loolu. dana ful may googee lu ko ëpp lool dolli ko ci li ma la joxoon. nee ba bëri ba bëri lem dënd bi. sëñ Tuubaa nag loolu loolu ma yàlla wax. nee na ku tëdd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul maam soxna Mbène ni ko loolu ma yàlla wax. may ko loo xam ne. may itam danaa ko war loolu loo xam ni. ak cant koo xam ni ak cant koo xam ni. lottu na ci lool. nee na lottu nag. nee na moo tax yéen ñii. nga xam ni saa mbég mii mooy seen mbégte nee na lu ngeen am ci man mi ngeen ko jëlee nee na dana xam ni man mii itam bis bii nag lu ma am ci laa ko jëlee nee na kon nag nee na na ngeen ma fonkal bis bi na ngeen ma ko fonkale santal la ma ci nag saa borom nee na sant googu nag la koy def nee na bis bi nee na bis bii la ku tedd ki xëyoon Mbàkke Bari nee na di wéy ca liggéey bu mag ba te liggéey boobu. te liggéey booba. ci laa amee lépp. nee na ci laa amee lépp. nee na lii daal lay santlu. ku sant ku ko ci sant ku ko képp koo xamante ni jël nga sa alal def ci loo mën ak loo mënul sant la ko Serigne Touba jël ko sant la ko boromam. nee na da ngay wuteeg ka seleng lu lool ci bis bi. nee na fii ak ëllëg. nee na yomal xiyam nag nee na amut weer amut bis waaye bu ñu àgg ci bis bii nee na sunu borom mi nga xam ne moo nu sàkk sàkk ñëpp dana ful xéewal ya def ci xol yi ñoom ñi ñu xéewal def ca xol yi nekk mbooleem ñi nga xamante ne ñoo bëggul Serigne Touba wan ni leen lii nag bokku caaji ni pilis la nee na lii Serigne Bamba ko moom nee na kon nag nee na bis boo xam ni yàllaa ko sàkk may ci sëriñ bi loo xam ci sëriñ bi loo xam ni. kenn mënu ko tudd ci làmmiñ. kenn ko tudd ci làmmiñ. ndeysaan ak góor. kuñ ci nee na képp kuñ ci woo. da ngaa war a xam ne dañ laa dimbali rek. nee da ngaa war a xam ne dañ laa dimbali rek. nee na sëriñ bi loolu rek la ci jublu. wax na ko nag. nee na wax na ko nag. bis bi kat bis bi kat. Euh, na ngeen na sant la na ngeen ma ci sant la yàlla sunu borom. waaye waxtu ngeen àggee ci di di di ko sant. waaye ci di ko sant. alxuraan xasaayit salaatu ala nabi ak bernde lu ngeen ciy def nag. mais lu ngeen ciy def. lu ngeen ciy lewatal. lu ngeen ciy lewatal. bu ngeen tiimee doomu jàmbur ja. bu ngeen tiimee doomu jàmbur ja. daaba ja daaba ja. di lewatal. di lewatal. na ngeen tëfli ca paaka ba. na ngeen jël nga ngànnaay la ngeen cee lewatal ni. tëfli ci li. bisimilahi. bisimilahi. tubaab yi waxu leen dëgg. la ngeen waxoon. nee na la ngeen waxoon. nee na la ci tus. sëriñ bi nag moom. bi nag. la waxantoon ak boromam. nee na sotti ba coleet. doo ko dool daal laa laa ilaaha illallaah. oh. tey. daal di ko ni. daal di ko boo boo jógee. ko boo jógee. na nga dem Balla Fally. na ko. te ko. te ne ko. na ko wax fere yëpp. na ko wax fere yëpp. wax yi sax bari na lool. nee na wax ji nag bari na lool. dañuy wax ne. nee na ñu bari dañuy wax ni. daa wóolu sëriñ Balla Faali. daa wóolu sëriñ Balla Faali moom sëriñ Mat Jaw. waaye déedéet wóoluwu ko. da ko ni. ba mu ko waxee bis bi. wax ko ni mu ko bëggee. wax ko ni mu ko bëggee. wax li ko ci Yàlla defal. ci yàlla defal. ak lépp luñ ci yàlla defal. ak ku ko fokk loolu ci yàlla dig. boo jógee. dama ca sëñ Balla Fally Dieng. wax ko ko. te ne ko. te ni ko. na ko wax fere yëpp nag ñu ko ñëpp yëg. bi sëñ Mat Jaw waxee ñu jógee. nee na bu ko tedd ki seex ma Jaw joxee jéeg ay jéegoom jëm sëñ Mat Jaw sëñ Balla Fally Dieng. nee na mu demee sëñ Balla Fally. ne ko sëriñ bi nee na. jaar fa sëñ bi jaar nee na jaar fi sëriñ bi jaaroon ak moom. nag ko wax fere yëpp. ne ko nag na nga ko wax fere yëpp. mënu ko daana ko defee ni mu ko waxee. mënu ko daana ko def ni mu ko waxee. mënu ko wax ma ko. mënu ko yaa ma ko yaa ma jox ndigal. mënu ko yaa ma jox ndigal ji. man maa am ndigal wax la ko. mënu ko nag maa am ndigal wax ni la sëriñ bi nee waaye yow nag yaa am ndigal wax ko fere yi. ca fere yi laa bokk wax ma. mënu ko wax naa la ko. ko wax naa la ko. sëriñ ko jëkk a wax. mënu ko sëriñ ko jëkk a nga ko jëkk a wax tey sëñ mat jaw bi loolu wéyee. nee na bi loolu wéyee. sëriñ bi waxaat ak moom. nee na sëriñ bi waxaat ak moom. ci bis bi. li ko indi Touba gii. li ko indi Touba gii. daal di dem. daal di dem nag. sëriñ bi demee nag. nee na bi sëriñ bi demee. mu daal di xalaat nag ni mu mu mu joxe ndigal. mu daal di xalaat nag ndigal loolu jóge ci ku tedd ki nu muy fexe ba ñëpp dégg ko. waaye bi ñëwee ci sëñ bi ñëwee ci ku tedd ki Cheikh Modou Moussa Ba. fekk na joxe na bi. nee na sëñ bi ñëw Touba. bis bi ñëwee bi ñëwee Touba. bi moo moo gën moo gën ci bis sëriñ bi yëpp. mu ne bis bii ku tedd ki ñëwee Touba moo gën ci bis sëriñ bi yëpp. nee na dajeeg boromam. moo gën ci bis yëpp. nee na kon nag ab taalibe rek. woo naa ñëpp nañu daje. nee na ku fanaan na ngir bis bi. yendu fi boo xëyee. boo xëyee. yàlla jël na bàkkar yi nga xam ne yëpp tàggale koog yow amin mu daal xam ne. nee na mu daal di xam ni. sëriñ Bamba wax sëriñ Bamba wax de. te ñaar ndigal du am. mu naan cel mu ni cel dem ba këram sëñ ma dawa ni cel dem ba kër di wax ne daa di wax ni yàlla de mën na lu ne yàlla na lu ne ba mu des jëlee ma fi nee na ba mu des jëlee ma fi te defu ma ndigal li ma sama sëñ te ma ndigal li ma ko tedd ki Seex Ahmadu sant fekk fekk defu na fii defu ma ko rek du dem nee na yàlla nag mën na lu ne waaye du ma dem loolu wax loolu waxtaan na ceeg mag ñu bëree bëri ndigal loolu waxul cel rek ak ndigal loolu rek Moussa ne fi. nee na Cheikh Modou Moustapha ne fi. diirub lim fi ne. ba liggéeyam jeex. ba liggéeyam mat. ba yàlla wàcc ko ba yàlla wàcc ko. nee na nag Serigne Fall daal ni jeef. daal di toog wutu ko. daal di ñëw paxa seet sëñ daal di ñëw paxa nag seet sëñ ma jow paxa ndigal laa ngay ñëw. nee na Serigne Matar Diaw moo ko doon kondiril. nee na ba mu ñëwee. nee na sëriñ bi wàccut. Matar Jaw wàcc. Matar Jaw ñëw fekk ci biir kër gi. ñëw fekk sëñ ma jaw ci biir kër gi. ne ko sëriñ Fallu daan àndal mi ngi ci bunt. mu ni bëreet ànd ak moom. nee na sëriñ Jaw ubbi wata ba. nee na sëriñ ma jaw jox sëriñ Fallu ñaari loxo. ne ko Seex Mat Faadal. lenn rek moo tee ngay sëriñ Bamba. arfan bi arfin. mu ne ko lumu. mu ne ko lumu. ko bisu sëriñ Bamba bii. boo ko wootee Touba bis boo ko wootee Touba. murid yëpp fekk la Touba. dafa ndokk ak yow Touba. ngay Serigne Bamba arfan bi arfin. mu ne ko danaa ko def. mu wàcc. nee na moom fa ñett fan fa Gosaas. ba mu ba mu ba mu tàggoog moom. nee na ba mu tàggoog moom. jëm la kan jëm la kan. la sëñ ma Diop daal di wax ne. la sëñ ma Diop daal di wax ah, man nag sama sama mbir jeex na. lii nekk bi fi bawoon. fekk na ci at ma ko ma ma nee na fekk na ca jiitu woon. baylu na tool boo na tool boo xam ni. toolu wëtteen la tudd. bañ ko bañ ko récolté. nee na bañ ko rukkantoo ba noppi. mu woo ay màggat. nee na mu woo màggat yi. accu lu wa. ñu def ko ay poqe. ñu def ko ay poqe. mu sol ko ci ay saako. takk ko denc. nee na takk ko denc fi béréb. ba sëñ bi demee rek. nee na ba sëriñ bi demee rek. ba ay bis gi daan jàll. nee na ba ay bis gi daan jàll. mu wóolu ab rab mu wóolu ab rabkat séeru rabal. séeréer séeréer. tëj ko ci ak kees. tëj ko ci ak kees. jox ko saako jox ko saako yooyee. ko ay sor. nee na ko rabal ma lépp ay sor. ba mu ko rabee ay sor ba nee na ba mu ko rabee sor ba noppi. mu ñawloo ko ci dara. nee na mu ñawloo ko ci dara. ak turki dara. ak turki ak mbalaan ak mbalaan. ak kaala. daal koy lëm. daal koy lëm. def ko ci waxande. daal koy denc ci waxande. tëj ko tëj ko. tëj bind bind ci kaw ci kaw waxande woo. bind ci kaw waxande woo. lii lay àndal dem barsax. nee na lii mooy bagage yi may dem barsax. bu na bu ma lenn tubaab topp. woo woo kenn ci waa këram. nee kenn ci waa këram. wax ko ko ne ko bu dara xewee rek. lii laay waaj a dem. nee na soxna soosee. nee na Touba gi la faatoo. ndaamaatu la dëkk.

bu dara xewee. bu dara xewee. nee na lee lay àndal. nee na sëriñ bi daal laaj walis wi. seet ko mu càngaay ya. noonu noonu noonu noonu demee. nee na lii la demee. sëñ Fallou itam. nee na ku tedd ki Cheikh Ahmad Fadal. 46 la ko sëñ. nee na 1946. la ko sëñ ma di wax lii. nee na bi sëriñ bi demee. ñetti yoon la ci teg. ñetti yoon la ci teg. ndeysaan daal di ñëw ba sax gii. nee na bi mu ñëwee. 47 daal di daal di daal di yegsi. nee na fa loota mbooloo mépp. nee na leen ci màggal gi ne ku koy màggal seet na ko màggal si Touba. kon ñun daal am nañ ci bis xam ni. kenn amu ndax bi ñu ndigal. ndax bi ñu joxee ndigal. bi ñu xamle. bi ñu xamle. bi ñu ak lim ci am. ak lim ma daal dëkk soobu ci noppam ya moom it moom la jox ndigal. moom itam la jox ndigal. mu wax ki nga xam ne. mu wax ki nga xamante ni. muy Serigne Balla Faly Dieng wax ko fere yi mënu ko dëkk mu ko wax. mu wax ko mu ko ko. bi bi mu bëgg yëpp ñëw Touba itam. nee na bi ni mu ñëwee Touba. moom ci moom la ko bàyyi woon. nee na fa mu ko jëlee woon fi la ko bàyyee woon. ca làmmiñ la ko sëñ Fall defee. te sëñ bi bàyyi ba joxe ndigal li. nee na bi sëriñ bi joxe ndigal li. fukki at ak juróom-ñeent. bi ko sëñ ma joppaaka joxe ndigal li ak bi mu ko defee waaw kay ñëw leen. ñëw leen addi seex Mat Fadal ñëw leen na ñëpp làmm seeni poos laa ilaha illallah ndigal la bi mu ci jotee ak ku tedd ki Cheikh Mat Diop Paxa bi mu ñëwee Touba fukki at juróom-ñeent foofu lañu ñu bàyyi wax ji. bi sëñ Touba joxe ndigal li. nee na bi sëriñ Touba joxe ndigal li Mat Diop Paxa. ndigalul ndigalul màggal li. ba nga ko joxee rek. ak ak ak ak bi ko sëñ ma jow andee Touba. ak bu ko sëñ ma jow andee Touba. nee na mbokk sëñ Fallu bënd ko Touba. nee na diggante ba fukki at la juróom-ñeent. nee na lépp ci lii la jaare waaye xam na ne màggalu sëriñ Touba gii. nee na xajul ci génn benn kër wala mu dëkk. Touba rek la xaj. loolu daa amoon daa amoon aw yoon wu jaar. nee na loolu daa amoon aw yoon muy jaar rek ndoxum wala la. nee na jaar na ci ba ñëw. kon nag nee na lam daan wax at mu ne lay wax képp koo xam ni nee na bis bi tax na laa jóg nga ñëw ak koo a doon ak koo mën a doon yàlla andi la fii ci dëkk bi nee na mi ngi ñaan daal nee na askan wa nga bokk yàlla bu ca kenn tane nee na da nga yokk rek faaw ko nee na loolu daal moom ñaan na ko Serigne Touba ba am ci yàqin lool nag. nee na moom muy borom bis bi nee na képp ku fi màggale daal kër gii nee na na yàlla nee na li ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba di joxe ci xéewal yooyu kenn du lu cëppale ca kat da ngay dolli ku rek nag dootoo wàññi ku mukk incha allah incha allahu taala. ñi nga xam ne ñoo ñoo ñooy liggéey liggéey bi. nee na mi ngi sant nag daayira yi nga xamante ni ñoo liggéey liggéey bu sell bii. nee na daayira bu mag bi nga xamante ne mooy Serigne Cheikh Thiam mi toog. nee na moo du Ba ndax rahmatullahi alayhi moomu nga xam ni. nee na moo ko jiite woon Serigne seex mi topp ci. nee na ba ci daayira bi mujj. nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax. di leen wax ni nag. looy def ngir yàlla. looy def ngir yàlla. te yokkuwut. te yokkuwut. nee na yàlla moom du moom. waaye ba ngeen dee benn. nee na ba ngeen dee benn. ba léegi ñu doon lim. mu yokk di jëm kanam. yokk di jëm kanam rek. nee na firnde leen ni seen liggéey yàlla nangu na ko. nee na ñu ngi leen di sant bu baax. te di leen gërëm bu baax. di leen xamal liggéey bi ngeen di liggéey. nee na Serigne Touba dong ngeen di liggéeyal. Ah, nee na moom mi ngeen koy jo nee na moom faju ci benn soxlaam Serigne Touba rek la koy jox. nee na soxlaam yàlla faj na ko bu yàgg. nee na kon nag. nee na lim jublu ci yéen ñii. nee na ñun ñii ñu am li mu am. nee na. nee na loolu mooy yéeneem. ndax yàlla moom li mu yor du jeex. kenn ko ne mën na ci li mu bëgg lépp. kon liggéey bi xam ne. liggéey bi da ngeen xam ni. moomu ko sëriñ bee ko moom. nee na lii daal la leen di sant nee na mi ngi leen di soññ bu baax. kenn dara nag looy def boppam wallaay jaw léegi bi may ñëw sëb sëte nga ni Cheikh Abdoulaye maa ngi moom ca Koussin oto bi barkeb sëriñ Touba dama ne ko Serigne ma sëñ na Diop paxa képp ku liggéeyal Serigne Touba teg ko ci loxoom yokkute ngay def moo tax bi nga ko waxee damaa daanu waxuma la ko léegi bi ñuy ñëw maa la ko wax. man de addi taalibe nee na liggéeyam akub liggéeyam nee na sëñ tubaar la koy jox nee na du ko faje benn soxlaam nee na soxlay boppam daal nee na moom yëfi boppam la koy faje waaye liggéeyu taalibe akub addiyam sëriñ tuba la koy jox lu muy liggéeyal sëriñ tuba nee na lu ko taalibe jox bu dee dërëm bu dee junni bu dee million benn suuf du jëm ci boppam mi te liggéey boobu la koy jamale moom yi moo ko wax dëkk bii rek wax na ma dëkk bii na ma nii wallaahi ah dëkk bii rek Serigne Saliou nee na dëkk bii rek waxtaan nga ci moom nee na boo gisee doo yëgle ak na boo gisee du yëgle liggéeyu jumaa du tegu xeer nee na daa xam ne yàlla nee na kenn du ko yalwaanal nee na am na loo xam ne yalwaanal yàlla la rek nee na li ngay def bu fekkee yàlla rek a tax nee na yàlla moom moom lépp li nga bëgg da nga ko doon ba mu ni coleet nee na foofu rek la ne nee na bu ko ñëpp bàyyi woon itam nee na moom dana ko doon ba mu coleet rek yàlla ci àndi nee na yàlla moom lépp nee na moo tax du woote ci rajo du def communication du bind leetar nee na daal bu julli magul doom mag mag magul rak ruuy moom ruuy nee na yëpp la bindandoo jóg ko nee na la mu jublu ci loola ci ñii. mooy bëgg kenn ku ne. nee na kenn ku ne. lam la sant ci kooka. lam la sant ci kooka nga def ko. nee na lii rek la. nee ku magul nit ko mën a doo ko mën a digal. nee magul nit moomoo ko yërëmoo ko doo ko mën a digal. nee na ku jurul nit it doo ko mën a digal. nee na bu ñëpp maase woon juddu. kenn du topp kenn. nee na lii rek la ci yàlla jublu. nee na nag. nee na yàlla da ko def benn jal. ba mu soob ko. mënu ko. ci diggante bi. bii xaaj yëpp dañuy texe. bii xaaj dañuy texe. bii xaaj bii xaaj. dañuy texe di dañuy texe di. ko mu. nee na mu boole ma xaaj bi texe. nee na mu neex ko nag mu boole ci xaaj bi texe. ma ñaan ko suñu borom. nee na mu ñaan ko suñu borom mu boole ci xaaj bi texe. nee na yal na nu yàlla boole ci xaaj bi texe. moo tax nee na moo tax mu ne. xuloo bu jumlati la siina. xuloo bu jumlati la siina. afloo bi yatawajjahu. wa rabbil musoo. wa rabbil musoo. nee na képp koo xam kii. nee na képp koo xam ne. da nga taxe ëllëg da nga taxe ëllëg tab xool moom ci moom rek lay nekk loolu yàlla ko nee na loolu yàlla ko wax dégg ngeen ku tedd gee wax ne Cheikh Ahmadou Bamba nee na ba mu xaajee ruu ñii texe ñii texee di nee képp koo xamante ni sab xool nekk na ci moom mu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bu ëllëgee booy faatu jannatu nee na murid yi nii nu bëgg Sëriñ Bamba nee na nag ruu yooyu noonu lañ ko bëggee dañ ko daan sam. nee dañ ko daan sam. ba mel ni ni ni njéeréer nee na ba mel ni njéeréer ni muy def dugub. garab garab baa nag moom liis. baa nag moom liis. nee noonu a réew def. nee na ba géel gii. te malakul xalaale woon. nee na koo xam ne ñun yàlla boole nañ ci. war nañoo sant yàlla. te xam ni. loolu taw feex nee na lii taw feex rek la. tawfeex rek la. kon nag nañ ci bis. nee na bi. nee ko ca gàttal ñu woon. nee na dawal ca génn ca gàttal ñu ba ca samp saw xel. nee na ñor góor góorgóorlu. yokkal. ndax kat. Serigne Fallou moo wax ci la. Serigne Fallou Ba soxna benn wax ci làmmiñ ñi. ca Aliya. 1959. 1959. ñun dongo yëpp. ñun dongo yëpp. dajale nañu ci bis. danoo dajale ci bis. ba mu mat ñaari waxtu. ba mu mat ñaari waxtu. wax ni. ñun kat da ngeen am tawféex. daal ni ñun ñii de dañoo am tawféex. ndaxte. ndaxte. la tàmbale Cheikh Rafal la tàmbale Cheikh Rafal lépp baawul muridina. mi ngeen di dégg. ba ci man mi di wax ak yéen. nee na dañ doon làmbatu rek. nee na ku xëy daal yaa nga naan nii di làmbal fu ngërëm li ne. donc waaye sëriñ bi daal. ñaari ndigal rek la ma soo joxe. muy jumaa ji. ak bisam bii dégg leen loolu. ngeen ne. nee na jumaam ji ngeen ne. waxoon na ne waxoon na ni. nee na bu bindeef yëpp maandu woon kenn bañ cee def dara. nee na balaa yàlla lim dënd bi. nee na fi indi bindeef yoo xam daanu ko def rom sotti coleet. nee lii daal wax na ko mu jàkkaarloog moom. yàlla war na ma jëm nee na yàlla na ko jumaay Ahmadou Khadim Rasoul ji ba mu jàkkaarloog moom. sëñ Fall lay wax de. yéen a ngi leen tawféex. nee na ñun ñi daal dañoo am tawféex. ñu li mu njëkk a joxe. nee na ndigal li joxe. muy jumaa ji muy jumaa ji. lii ngeen ciy def lii ngeen ciy def. su fekkente ne. su fekkente ni. benn doom. nee na benn doom. benn dërëm. benn dërëm. dana ci génn jumaa ji. dana ci génn jumaa ji. lépp lu ngeen ji. nee na lépp lu ngeen ci tool bii. at mu ne at mu ne. na mel ni ku ji xorom. na mel ku ji xorom. dégg nga boobu sëriñ bi da doon béy lu tool boo xam ne ci jumaa ji la jëm. 1959 nee na ca Daara ja Daaraam yëpp rek Serigne Fallou nii nee na boo xamante ni benn dërëm bu ñu jaayee gerte gi dana mooy jumaa ji yàlla na mel ni ni ngeen ku ji xorom nee na lu ngeen fi ji rek lu ngeen fi ji rek yàlla na mel ni ku ji xorom nee na bu fekkee nag lépp ci jumaa ji la jëm at mu ne la gën daaw foof ñu ne fa juróom-ñeenti at at mu ne. at at mu ne ñaar te daaw. nee na lii moom Serigne Fall la ko mu toog. nee na kon jumaay Serigne Touba ji mooy tawféex bu njëkk ji. nee na waaye ñun nag. tawféex xam ngeen nu mu demee. tawféex xam ngeen nu mu demee. déglu leen loolu de. tawféex xam ngeen nu mu demee. mooy tawféex xam nu mu demee. mooy tawféex xam ngeen nu mu demee. mooy nga toog sa kilifa. mooy nga toog sa kilifa. jëmm ji sori lool. na jëmm ji sori lool. tëx tëx lu. mu la wool ma kële. mu la wool ma kële. nga war a daw ba àgg ca mu nu ko wuyul. jàpp ca mbaggam mu jékki-jékki gestu rek nga ne ko nii <laughs> looloo gaaw <laughs> loolay tawfeex jëmm ju ne fu sori tëx lu nga war a dem ba nga fëgg mbaggam ni ko wuyul fam mu gestu nga ne ko nii nee na mooy tawfeex mu ne nag tawfeex ku nee na tawfeex ku am na nga ko téye ak sa fukki loxo ndax boo sàgganee ndax boo sàgganee ba ñàkk ko day mel ne day mel ni mbaam mu naan ak lem nee day mel ni mbaam mu naan ak lem mbaam moom lem xamewu ko ak sabati léeg tët mbaam xamewu lem ko sabati laa ilaha illallah laa ilaha illallah kon tey mbaam mu naanug lem ndigalul ñaareel ji mooy jubaa nee na ndigalul ñaareel ji mooy jubaa ji ak màggu sëriñ Bamba gi tey kon nag kon nag. ku ci gàttañ lu rek. ku ci gàttañ lu. sa bopp rek koy def. ku ci góorgóorlu itam. ku ci góorgóorlu. sa bopp nga def. li li waxoon rek. nee ku ne ku tedd ki waxoon rek. ku feeñ. ku feeñ ci jumaa ji dootoo nëbb mukk. ku ci suulu dootoo feeñ mukk. nee na lii la ku tedd ki waxoon. kon nan sant yàlla bu baax. yàlla na yàlla dimbali. nee na yàlla nañu yàlla dimbali. ba xiir nu. ba xiir nu. ci liggéeyal la sëñ Tuuba. ci liggéeyal ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba. ndax kat. ndax nag. ñi yemee yomal xiyam. nee na yomal xiyam. liggéeyub Serigne Touba rek fay jëriñ nit. yàlla bëggoon lépp. nee na yàlla. lim bëggoon lépp ak lim. santaane woon lépp lim santaane woon na Serigne Touba defal na ko. kon nag. nee na ñun daal liggéeyal Serigne Touba rek moo nu dese. nee na lu mu def lu liggéeyal ko rek. suñu pertement dong lay doon nee ñu daal na liggéeyal sëñ Tuubaa rek. nee nañ góorgóorlu bu baax. nee na danoo ma sam joo xam ni. nee na séeréer la woon. jëkk séeréer ji tax mu ragal mu ragal dongo yi. nee na jëkk ci. jëkk séeréer jëkk tax mu ragal dongo yi. bu xëyee rek bu xëyee rek. nee na bu xëyee gàddu boppam rek. fajar lay dem tool yi. du soññee du wax dara. ñu di ko wax mbañ ñoom. ñu di ko wax. mbañ ñoom ñoom. mbay ñoom mbay ñoom. Euh, gaa yi gaa kenn ku nekk toog bu neex la ñu jóg. nee na gaa yi dañ naan tëdd ba mu neex defal ko ay béy. nee na moom mii mu defal ko ay béy. ne ko da nga dem ba ko ko ma mu jàngal la. ne ko da ngay dem a jàngal ubbi sa bopp mu jàngal na bisaamati daarina daarina. antal mu wakkilu. antal mu wakkilu. sayru wal woo ma saaxaan woo ma saaxaan yow mi nga xamante ne yow mi nga xam ni yow lañ xelal jiitu daara ji yow la ñu jiital ci daara ji na nga xam ni na nga xam ni yow la ñu wëkkil yow la ñu wakkil yow la ñu yaa wakkil yaa wakkil sunu jëf yëpp yow lañ koy laaj faxdim faxdim jiitu ci kanam jiitu ci kanam wala tubaali jam yel ma xaaya maxaalinaa maxaalinaa jiitul jiitul te soññee te soññee te bul faale boolem ñuy wax te bul faale kenn kuy wax faxla bi ànd seyxa faxla bi ànd seyxa ahrufu alami ahrufu alami xamal ni sëriñ bi gën xamal ni sëriñ bi nag moo gën a xam suñuy mbir xam sa mbir nee na moo nu yaa ngi nag yaa nu jiite tey gaa yi lillah ah ولم يقال وقت خير مثلا هنا انا خمنا في وقت وقت وين هاي شنو لقي وقت شهيد بالله تعالى بنا وقت تخيل سيد لا لا مو انجلو نانا منكو وقت وين خمتني تي لا ني لقي وقت تخيل te daan na ki mbiram nag làmboo ko. wax dëgg walaat baal jëm foo foo leen boo leen boo jàll an benn benn kaw foo leen bi àndal si foo leen bi àndal si. isa ci olof. فقد سماما جميعنا a سماما جميعنا نانا لسي جاب كو سولو خج yaa xal ma naa. nee na yaa xal ma naa. yow mii nag yaay suñu jiit. mooy laaw néeg defoo ko. nee na lii nag boo ko defut. fa yaa nada man. fa yaa nada bun. na nga man. fa yaa nada man. yaa fa man. maa ngi woo rëccu. nee na. maa ngi woote maa ngi woote rëccu. na mi ngi woote rëccu yow mii ci yow mii. yaa ak ñun. ci ñun. soo soo deful nee na boo deful li nga war a def. rëccu dana la dal dal nu. kaw. ba mu ko jàngaloo. nee na ko jàngaloo. fajar la nee na fajar la jóg ni murit. nan leen dem tool yi. dagg na ko. dagg na ko. yàgg naa dàgge di <laughs> wax jooju nag sëñ mag ñoom lan ko waxaay ñun ñi leen ko wax moo du ñoom moomee la Serigne Thierno Dio wayloon bayit yooyu waaye bayit yi ñu la ko dottil déglu leen wax bi de déglu leen wax bu wér ki war a jiitu bul ragal bul daw ñemeel ca ña nga jiitu nga di leen soññi waaye boo ko def ba lëgee da nga am da nga rëccu ca ña nga jiital daan rëccu wax jàngu <laughs> nee nañ jéem a góorgóorlu bu baax nee na bi rek sëñ bi nee na liggéey ko rek moo fi des nee na leneen nekk jaamu yàlla moom jaamu yàlla moom moom rek moo nu fendi waaye luñ ci ban nee na ko yàlla bëggee munu ñëwun ko noonu nee boo jëfee ba noppi nee na bu ci génnee àddina génn ca bakkan nee na génn ca la nekk ca biir lépp day jeex te bu desoon itam yàlla bëgg lu des yàlla kenn du ko jox lu manqué. nee na at moomu siyaare ji yonent bi. 94. 74. 74. nee na Cheikh Abdou Lahad da ko wax ni. dana ko kañ ngeen di dem. mënu ko suba. mënu ko bu ngoonee. mënu ko bu ngoonee. bu timisee. na nga ñëw fii fi man ma jox la yóbbal. waaye du xaalis. nee na mënu ko du xaalis nag. nee na ba timis jotee. nee na fa moom la jullee timis. ba mu jullee ba noppi. nee na ba mu jullee ba noppi. nee ci ëtt bi. dugg ci néeg bi. daan na ko sëñ Cerno kaay. nee na mu ñëw. nee na mu laajar ko ne ko kañ ngeen di dem Makka. mu ne ko suba. mu ne ko li ma lay yóbbal day. moo ci noppee. nee na wàccoon naa ak yow. ndax lii ma lay yóbbal. Cheikh Abdoulaye moom ci lii rek la dëkk. muy lan. mu ne ko. mu ne ko boo demee ba sa néeg. tëdd ba léemu. ba tëdd ba léemu. ba yeewu ba yeewu. tànk ba nga njëkk a teg ci suuf. tànk bi nga njëkk a teg ci suuf. ba ba ngay del siwaat ba ba ngay del siwaat Touba. lépp loo fi def ci lu baax. lépp loo fi def ci lu baax. loo fa def ci ak jullit. loo fa def ci wër Kaaba ga. te loo fa def ci wër Kaaba ga. loo fa def ci siyaare yonent bi. nee na dafa lépp addi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. nee na li ma kon tax ma xala ko nag. nee na yàlla lim soxla ci jëf. daa néew lool. te lim ci bañ. te lim ci bari lool bari lool. te bu génne li ci yàlla soxla. nee na dara du ci des. mbaa la ca des tuuti lay doon. te yàlla du jëlu des. nee na lii nag. moo tax ma jox la lii. nee na ku tedd gi Seex Ahmadu Bamba. daal di jël yàlla. daal di jël yàlla. daal di liggéey suñu borom. ba suñu borom nag jël yëfam ak jëfam jaxase. nee na yàlla du joxe dara. dégg nga loo tudd ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba yàlla bëgg na loola nee na bu dee dina xam ne ca ginnaaw kër ga sax boo noppee ñaar di ku tedd ki yàlla soxla na ko la ilaha illallah nee na man nag Cheikh Abdou Lahad nag wàccoon na ma ak yow lii ma la wax ci laa nekk nee na digal na li boo fa jógee boo ñibbisee loo defati rek te yàlla sant la ko loo ca noppi rek def ko addi Serigne Bamba. nee na. gaaw li ngay def yow. nee na. gannaaw yow li ngay def gannaaw yow li ngay def baaxul. te moom lépp lu am na. nee na liggéeyal na sunu borom ba sunu borom gërëm ko. nee na soxla léppam. <laughs> nee na loo ko jox mu jox ko yàlla mooy borom bi ñun ñooy borom weñ yu ñuul yi nan jaxaseeg moom. yàlla na yàlla nanu yàlla dimbali. bool bool ci ñi muy liggéey. loo na bool ci ñi muy nga xam ne sax ñun force rek sunu xol bi moom liggéey Serigne Touba rek ci nekk. kum liggéeyoo rek. nee na kum liggéeyoo rek. dana la jox ay tànk. ak noo doxee. ñoo bokk ci ñun ñu dimbali nee nag yàlla nañu yàlla boole ca ñooña. nee na képp koo xam ni. yàlla indi na la ci kër gi. yàlla indi na la ci kër gi. tax laa jóg. màggal gi tax laa jóg. ngi ñaan suñu borom. mi ngi ñaan suñu borom. dara ji Serigne Touba. ak bisam bi. lépp loo taxaw la jóg. lépp loo taxaw la jóg. lu doon sa yitte. yàlla na ko yalla def. lu doon sa njàqare. yàlla na ko yàlla tàggalee moom. dara ji Serigne Touba jërëjëf Jaw jërëjëf jërëjëf Jaw kon nag. sëriñ bi nee na ngay tàll say loxo mu ñaan tuuti rek nee na fàtte mu ta ñàkk nee na daayira yi da leen a boole rek nee na daam daayira bu mu tuddut nee na dana ko tudd muy daayira soxna ma jooju ñing nee da ko sosoon te yàlla rek ak sëriñ Tuubaa taxoon nee na mu tax mu walewul ko taalib yi nekk Ndakaaru yëpp nee na la nekk ba ñibbi àjjana nee na yàlla muy dogal ñi fi bàyyi mooy Serigne Fallou mii ak Adja. Adja nga ca France. nee na Adja nga ca France. nee na dafa wax ni lépp lu wuy juru moo daan def. dana yónnee xaalis bu ñëw. nu jënd ko indi ko fii. ba mu ñibbisee. ba mu ñibbisee ba léegi at mu ne. la yaayam daan jënd di ko indi mi koy jënd di ko indi di ko def. nee na fàllu itam. nee na bu yàgg la joxe la ko mën na ko màggal. nee na ren nag moom dani comme yokku na day joxe gileem. nee na joxe na gileem gi. nee na mi ngi leen di gërëm bu baax. te di xamal ni. nee na ah day gën gënu leen day. nee na a ngi jaar ci tànkam. nee na bu leen wàcc de. nee na bu ngeen ba fekk ko. billaahi da sant yàlla sant Serigne Touba sant seen waajur wa nee na moom moom mu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal it ngeen yokku ba tal ko ba li ngeen yéene lépp seen xol ngeen man dara jëy Serigne Touba nee na lii daal da ci a teg rek nee na am na ñu daan ànd ak ma joojo nee na daal danoo wérut waaye seeni xol France na Touba nee na ko te bokkoon. te jëkk ànd ak ñëw. te jëkk ànd ak moom ñëw. muy El Hadj Malick Soose mii. nee na at mu ne mu ñëw. 90. dinañ jiile fanweeri at ak benn yoo xam ne fii lay màggale. nee na yow kombul rek. nee na ren nag da ngaa di sa waa kër gën a neex. kon nag. nee na mi ngi leen di seeral loolu. ku am wëlëri la alaaj alaaji. nee na yàlla moo santaane wëlëri. nee na. nee na kenn ku ne ëllëg dana wax sa wëlëri foo ko teg. kon nag nee na yow mi ne ku am wëlëri la. nee lii daal moom xam na ko ci yow dana ko seere waaw waaw. yàlla nee na yàlla nañu yàlla dimbali. lool. ban yàgg fi nangu leen seeni ñaan ca fas seeni aajo amin